Cheikh Niass wax nan daaw daaw moom moo waroon jëlaat récupéré waat ndogu li ñu continuer waat tourné waat ko ak moom pour mu dax Walfadjri mais intermédiaire yi nga xamante ni moom la ma tegal ci diggante bi ci ñi ma war a waxal looloo tax ñu reculer wu parce que ndogu li actuellement man maa tu yor tout ce qui est administration muy bañ na ko ba bu ñuy fay sax Walf TFM bu ñu njaganduur di fay man lay jox xaalis bi ku nekk maa la koy dugalal sa compte ku nekk sa cachet maa koy dugal sa compte maay waxaale maay def lépp. maa ngi signé contrat ci Rama Thiam ak ma leen di remercier de passage parce que aussi kii sama maam la kii sama xarit la Tony sama frère sama mag la ñu jiitu ma ci théâtre lu yàgg mais kon bu ñu demee ba am confiance jiital ma ma leen ci remercier mais daal en tout cas ñun nous sommes prêts ñun dañu liggéey tey jii may wax ak yow nii 15 heures maag Tony am nañ ku ñu amal rendez-vous kilifa bu mag producteur bu mag boo xamante ni dafa bëgg a jëlaat ndogali liggéey ko ak ñu tey jii quinze heures laa la wax. kon ah, amagu leen tele ci mois bi gi ñu jëm. waaw xam nga Ndiaga Ndour ñu ngi waxoon ak moom trois ans on a fait 3 ans dañ waxoon ak moom. def nañu contrat trois ans bi matale nañ ko léegi nag fi mu toll nii ñoo yor suñu càggal guy ñun man li may wax rek mooy euh, télé bu du fa signé sax CD yi ba fay signé CD xawma nu ñu koy waxee parce que euh, artiste bi il faut mu moom boppam il faut moom boppam bu fekkee gëm na talent ah ci li ma yaakaar il faut mu moom boppam. mooy que gëm na ni ñun euh, bokk nañ ci ñi nga xamante ni développé nan ndogu yi am ci koor gi à part la à part Serigne Ngagne à part Sanex tey ñu bari buñ koy def c'est grâce à ndogu ñoom Tan Bombe man waxante dëgg léegi nag dem na ba nga xamante ni waxuma la télé yi mais internet bi rek la fay am dina ëpp cinquante ndogu <laughs> kon tey mooy li ma waxoon sànq rek nan xam ne ñun def nañ suñu touche sunu partie bu mag ci théâtre Sénégal te loolu c'est très important man damay tiit sax des fois su ma génnee parce que bu koor gi passé ay mois dama naan ax ah, nit ñi defaate nan ma léegi man nu ma neex mun naa koo def ci mbedd mi wala mën naa dox kenn du ma xam mais des fois damay am problème des fois damay ànd ak nit koo xamante ni chaque jour mu ngi feeñ à la télé sax mais man la ñuy gën a sonal nga xam ni loolu euh, carrière la carrière la carrière nag dafa jar a sàmm dafa jar a liggéey waaw c'est ça mais daal en tout cas Cheikh Niass sunu xarit la euh, bu amul benn intermédiaire mun nañoo liggéey ak moom toog wax ak moom liggéey ak moom. kon daal dafa mel dafa am ay yàqkat yu fa nekk. waaw xam nga li naan mag lu mu ne ba dee bu dekkee. <laughs> mais mais mais du bitey moo nekkoon seen diggante te bitey léegi nekkatu fa wala dafa am ñeneen. bitey mosut a nekk suñu digganteeg paa bi bitey scénariste la woon moo doon moo doon bind Sa Ndiogou moo nekkoon idée générale bitey moo nekkoon scénariste moo doon réalisé mook Charles Charles Charles Charles. mais saa njoogu moo mës a nekk suñu digganteeg paa bi saa njoogu moo mës nekk suñu. moo daan yàq daal. moo moom daal moo xaw ma moo daan <laughs> xaw ma yàqul waaye moo mësoon a nekk suñu diggante ak paa bi waaw bu nu bañ na ba bu ñu waxee ak paa bi sax paa bi ne wax leen ak saa njoogu yaa ngi comprendre tey ñun bu ñu na am problème wala ñu am ñu parce que ñun mun nañoo wax ak saa njoogu ne ko ñun lii leen bëgg ak lii ak lii ak lii parce que boo xoolee Walf la ñu fa jëlee mooy Euh, dañ daan def koor paa bi di ñu fay normal vraiment parce que li ñu daan waxanteeg moom moom la ñuy fay mais dem nañ ba benn certain moment gis nañ ne sponsor yu bari yu fay ñëw des fois ñun ñooy wax ak ñoom ba ñu ñëw comme ram man Tony ak keneen ak keneen. léegi nag yàlla dogal ñu indi fa sponsor boo xamante ni sax bu ñu ko indee ci koor gi dafa jëndaale petit déj yaa ngi comprendre léegi nag fekk boobu danoo waxoon ak paa bi euh, ñu toog réunion man paa bi ñoom Ramatiam ñoom Maya ak Sa Ndiogou ñu ñëpp ñu toog ak Mousse Fall bi ñu toogee ñu wax paa bi ne ko kat bu ñu fi indee sponsor sponsor bu nekk nañ fi am 10 pour cent ba mu d'accord ci loolu. waaw mais imaginer nga indi sponsor mu war a fay 49 millions petit déj war a fay 7 millions pour koor gi. imagine loolu est buñ ci amoon dix pour cent yooyu ñaata lay doon ci xaalis du bokk ak sunu kase mais loolu xaalis la loolu duñ ko bàyyi mu nax saay noonu léegi bi ñu waxee ba nga xamante ni dara desul lu ñu ñu fayeeku ñu wax ak paa bi paa bi ne wax leen ak saa njóogu wax naa ak moom ba bare mais saa njóogu buñ ko woowee moom mu ne wax leen ak paa bi. moom moo nekk seen digganteeg paa. waaw léegi nag ah léegi nag wax dëgg fa yàlla ñun ñu comprendre nan paa parce que lépp ci loxoom la ko tegoon mais bu demee ba saa di daw responsabilité mais nag nan waxante dëgg ñun dañuy arrêté parce que tamit ñu moo wax la benn affaire donte ni télé bi moom moo ñu boosté moom moo tax tey sénégalais yi gën ñu xam par rapport ak ndaw mais sunu liggéey la dañoo fekk ñuy théâtre parce que boo xoolee Tan Bombe 2009 lañ ko xam mais def na 10 ans de carrière avant nit di ko xam kon objectif am nekkul woon ci ci ci ci ci télé quoi moo tax télé des fois euh, nit ñi dinañ la dinañ la exploiter par rapport ak télé dañuy foog ni ku bees nga wala dañ ci ciy ciy doog a dugg fekk na demewul noonu wala yow feeñ gi rek moo la ñor siw gi moo la ñor fekk na du loolu. ndax ku siw sonn daal la dal na la dal na keneen ak keneen boo siwee tey say say say pour pour pour nga def la nga daan def dootul yomb daaw dootoo dugg car rapide man waxante dëgg ndax coow non coow li da lay sonal même bu dara du rey du dara mm. mais tan bombe i yaa nekk nii diw ay bi waxee diw lii ay diw lii mais noonu dëgg sénégalais moo amagul esprit gis célébrité carrément di di wax ak moom correctement comprendre kon euh, du du rëy yëg sa bopp wala rëy mais euh, boo siwee tamit xam nga àdduna ñëpp lan lay yaakaar sa famille yaa ngi comprendre fi nga dëkk dañuy foog ne am nga loolu jeex fekk ne demoo kenn dootu la yërëm <laughs> kon kay kon kay wax dëgg fa la ñi lay liggéeyloo tamit aussi amal fulaay waaw mooy loolu.